benn sàcc la boo xamante ni sàcc bu ñàkk chance bi li tax mu ñàkk chance mooy kër ga mu dugg di sàcc paa bi yàlla a na fàqir la yorul dara benn ginaar la ko dénk paa bi di ko yor pendant vingt ans ginaar gi dem na ba mujj gi paa bi da ko wutal kaal ndax ginaar gi dem na mujj gi nii lay dox yàlla dogal guddi gi ginaar gi war a gane ji gane ji boromam ndax paa bi dem na ba mujj gi dafa xam langage ginaar gi ndax miinanteeg moom paa bi xamul ginaar gi ginaar gi xamul bi ginaar gi xamal nga ni ko tey jii la fas wuy ji borom ci guddi googu.

kalbe baa ngi ci poosam ndeke fàtte na ko ca kaaf ga diggante boobu paa bi yeewu na di xool ginaar gi fu mu toll fekk fa kalpe bi bi mu jëlee kalpe bi ubbi fekk ci quatre cent soixante quinze mille ak benn dunq ginaar ak ñaari ya ya nga xam dindi kaaf gi nànk ak ci kaw mbaar mi jël kalpe bi dugal ci poosam bi muy dugg ci néegam bay waaj a tëdd am ku ko fëgg mu bi sàcc bi la mu ni ko góor gi maa ngi jéggalu euh, dama ñëw doon jën si ginaar mais il s'est trouvé que ni da nga tëddoon ma ni bu ma la dérangé naa jël ginaar bi après ma fay la mais il s'est trouvé entre temps que j'ai oublié euh, mon portefeuille ci wetu kaaf gi paa bi ni ka barke alquraanul karim billaahi doom wallaahi laazim bu dee mës naa yar ginaar ci sama àdduna yàlla ma yàlla jël àddiya sàcc bi góor gi sa kër sa bundu kër moo am seng bi man weddi wu ma bi ma ñëwee tëb naa kaaf gi moo dend ak sa benn frontière yaakaar naa sa néeg la sax su ma jumul ndax kër gi benn néeg la am paa bi ni ko barke alxuraan man pour te dire ça la vérité man musuma ñeme ginaar dama ko allergie gars yi dem commissariat ñu yóbbu ko ci inspecteur Baye Niass Thiam bi mu tegee dossier bi jàkkaarloog paa bi sàcc bi plaidé wax li nga xamante ni moo am euh, waa ji ni ko enquête bi leen rek mën a moon ci mën a dimbali daal di tourné téléchargé ci Google benn photo ginaar tourné ni nii paa bi xoolal lii laa la Pape ni wuy sama ndey ginaar sàcc bi xaru